xirfatahu sanan wa ibadatan yarju biha alafa ma yarjuna min rahmatin yowma alliqaai wa nadratin yunsiika taamu zulaaliha laymuuna mu ni médecin bi nga xam ni Serigne Cheikh nee na métier wala profession nee na bi nga xam ni mi ngi koy exercer nee na naam métier la nee na waaye daf ko jàpp jàppee jaamu yàlla nee na dugal ko ci baaqiyaatu saalihaat nee na nga xam ni métier am nee na ëllëg mën na sol robbu avocat nee na taxaw plaidel ko ci digganteem ak boroomam donte sax ci cadre médecine la wax waaye képp koo xam ni rek nekk nga saalix ci sa métier dugg nga foofu beneen bi nga xam ni présenté na ko moom góor gi mooy wax ni ma fi l idaati wal jahazi talfazi illa wasawisu bàyyaat ay quuna maana tey lañuy ñuy soog a tudd problème yi nga xam ni mi ngi am ci rajo yi problème yi nga xam ni mi ngi am ci télévision yi programme yi nga xam ni mi ngi am ci réseaux sociaux yi te bi ko Serigne Cheikh wu di wax ak tey ñaar fukki at ak ñeent ci ren la mu ni rajo yi mu ni télévision yi mu ni réseaux sociaux yi mu ni yi nga xam ni ñu ñu koy présenté Serigne Cheikh nee na lu nekkul lu dul luy jax-jaxal xol nee na nekkul lu dul loo xam ni dina jax-jaxal dund nee na waaye nekkul lu dul loo xam ni nee na dina jax-jaxal pénc mu ni ndax te boo ko toppee nee na te parewuñu ci yow nee na bu yàggee dina la désorienté wala mu génne la ci sa cadre yóbbu la ci beneen cadre te bi mu koy wax suñu série télévisée yi boobu egseeguñ ci mu ni nag awlaa bi ilaamin yadun xachantaha aw ataamatka tiina wa zaytuuna nee na temps bi nga xam ni nee na yaa ngi koy fas yéene passé nee na ci whatsapp nee na di bind statut bu amul njariñ wala nga di ko passé ci réseau sociaux Serigne Cheikh nee na di teg ci deru gor yi nee na loo ko war ta teg nee na yàlla jox na la ñaari loxo nee na ñaari loxo yooyu nag nee na ñaqal ko nee na mu mën laa dundal nee na ñaqal ko nee na mu mën a jëriñ pencum lëmm ñu ni ko nax nag problème yi nga wax est-ce que góor gi am na solution mu ni solution bi am na mu ni te jege na ndax wa bi ann fi lqurani kulla xaqiqatin wa kada alxaqaiqu tastafihi qarina moo tax wa in tanazatum fi cheyin farudduuhu ila allahi wa ila rasul ndax fa inna diina rasulillahi fiihi lana xallul machaakili dunyaha wa oxraha wa axiru daawana an alhamdulilahi rabil alamin ah moom day góor gi xam naa bala ñu lay joxaat rek dafa am benn baat boo ma wax ki démb dañuy waxtaan ma ni la maam nga ni ma waaw man la xaw naa jaaxle de nga ni ma lu la jaaxal ma ni la ah man de maam waxtaan vendredi bi xaw naa ci jaaxle ndax boobu maa ngi ci alqil asa ji xamaguma lu may tànn nga ni ma Pape Cheikh ma ni la waaw nga ni ma demal rek nga wàcc mu ni ma ndax am na loo xam ni sa kilifaa la ko sant mu ni ma nga ni ma comme moo la ko sant nag demal rek nga waaj te la ca des nga bàyyi kook moom du sa affaire waaye mu mel ni nag maam tey ci làmmiñu al mustarshidina wal mustarshidat ñu ngi lay yóbbante suñu gën a beesal engagement suñu gën a beesal pas-pas ci góor gu tedd gi moom xam naa la nga ko waxoon yaa ko ko waxoon ca Grand Théâtre yaa ni ko woon si def nga lépp yaa ni ko woon si wax nga lépp te dafa am waajuram wu tedd bu ñuy wax Serigne Mounirou Sarr radiyallahu taala anhu dafa wax nee na nit mënta def lu ëpp ñaar nee na nit mënta def lu ëpp am yéene nee na ginnaaw boo amee yéene nee na nga def la nga mën nee na ndax ku am yéene ba noppi def la nga mën nee na kenn mënatula te Serigne Cheikh waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na mu ni ndax li mu xam wax na ko mu ni li mu mën def na ko waaye moom góor gi li mu xam wax na ko li mu mën def na ko 78 ak tay noppaluwul te bi ci des ñu ngi ciy waxtaan ak Aboubacar Jabale keroog mu wax ni dafa am benn mbokkam buy wax ni am na ñoo xam ni bu ñu jaxasewaatoon carte gi duñu tànnaat ndax yenn saa yi nga gis ci carte kat yi ñu fay ba ci yàgg ñu ne ah aka neexoon ñu jaxasewaat carte gi ku ko wax rek xoolal lam xoolal la mu tànn wala lañ koo fay waaye am na ñoo xam ni fay nañ leen loo xam ni bu ñu jaxasee woon carte gi duñu tànnaat waaw waaye nag al mustarshidin wal mustarshidaat bu ñu jaxase woon carte gi duñu tànnaat ndax tebbi nañu al mualla ba noppi <coughs> kon nag maam nga waxal ñu suñu góor gu tedd gi ñu ngi gën a beesal ñu ngi gën a feddali ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla sàmmal ñu ko ci biir yàlla sàmmal ñu ko ci biti yàlla taxawul ñu ko ci biir yàlla taxawul ñu ci biir taxawul ñu ko ci biti ah yow tam nag tabaarakallaahu yàlla sàmm la ah yàlla mottalit la incha allahu kon nag ñu jox la nga mottali jotaay bi suñu paree ñu jox sa wayjur ah mu joxe ñaan tabaarakallaahu ñu ñaan rek ba suba ci kattanu yàlla ci 10 heures incha allahu ñu dellu si waaw ndax tey nag dañ doon nab na bi waaye programme bi ëpp doole nag suba la man nag mayam foofu <laughs>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 am na koo xam ne kuy liggéey ak moom ci effacement rek mën ngeen a def waaye moom mu ngi liggéey ak moom ak ñi mu am ci effacement kon yàlla yàlla yàggal ànd bi ci yàlla bu ko bu ci seetaane ab yoon euh, la ñoom soxna Fatima bokk ak yaay ak ñoom soxna Kalla ñi ñëw ak ñoom soxna ci mu ñu ne réeréwu ñoom moom benn jamono kon ñu ngi ñaan yàgg ci yàlla bu ci seetaane ab yoon fa tabaarakallahu dañ koy dagg foofu ñu ngi gërëm ñëpp.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 fal euh, lixlaas jàng falaq ak naas ah, teg ci ñetti peru salaatul fatiha wala ñu rax ci awuzu bi kalimatillahi tammati min ñetti yoon teg ci benn peru salaatul fatiha fatiha ayatul kursi yi lixlaas falaq ak naas awuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqa ñetti yoon tëje ko benn peru salaatul fatiha jox ko Serigne Babacar mu. joxal ñu ko ko yàlla aaral ñu ko sàmm ko ndax missionnaire si eh, jàmm rek a ko jib kon yàlla yàlla yàlla yàlla defal ko jàmm ci barke ñaan boobu ci barke mag ñu baax ñu fa tabarakallah asubillahi min asheytani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki iyaka naabudu wa iyaka إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من ناصر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 وعلى الملائكة فسجدت اللهم إنا نسألك إن كنت قضيت حاجتنا وأجبت دعوتنا فألحقنا بالصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بمحمد وببنته وببعلها وابنيهم ستين أعلام الهدى بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام وسلام وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين barke Seydi Ababacar Sy waaw xam naa kon nag ni leen ko waxe woon yéen a ngi ko ànd fii ci Mourchid TV fii ci kër Seydi Mouhamadil Moustapha ak waxtaan bi nga xam ni waxtaan bi nga xam ni maam Cheikh Ahmed Tidiane euh, Sarr def na ko ànd ko capitaine maam Cheikh Ahmed Tidiane si Moustapha gannaaw loolu nag suñu bàyyu daara euh, di Serigne Mansour Sarr def na waxtaan bu am solo waaye tamit gën a feddali kóllëreem waaye tamit gën a feddali ak euh, cofeelam ci Seydi Mouhamadul Moustapha waaye tamit mën naa ni waxtaan bu am solo la maam Cheikh Ahmed Tidiane Sarr euh, def euh, fii ci xadara bi nga xam ni spécial la woon ci maam Cheikh Ahmed Tidiane si di ko dellu di ko ñaanal nga xam ni ñëpp teewe nañ ko njaboot gi def fi ay ñaan yu am solo jàng fi taysir bu am solo waaye tamit def fi waxtaan boo xam ni fàttali nañ. kan mooy maam Cheikh ci mbindam ndax euh, mën naa ni capitaine euh, ginnaaw bi nga xamee ni jox na kàddu gi maam Cheikh Ahmed Tidiane Sarr mu ubbil ko mu nekk waxtaan boo xam ni indil nañu si xasida maam Cheikh Ahmed Tidiane si gannaaw loolu nag yéen a gis ni njaboot gi ñëpp rek ñu ngi àndandoo yëkkati xilaasu zahab suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane euh, suñu maam El Hadji nga xam ni xilaas jamono bi njaboot gi al mustachidin wal mustachidaat Euh, koo ci laal rek foo ko laalee mu ubbi mu ñëwal la ci abiyaat yu nga xam yu am solo yi nga xam ne ni suñu mag ñi bind nañ ko waaye tamit euh, rawatina euh, buntu boobu nga xamee ni jamono bi si leen toll ah a ko déggandoo nga xam ni bu njëkkoon man nan ni lu jafe la moom xilaasu zahab waaye jamono bi man njaboot ki mokkal nañ ko lool waaw man nan ni nag maam Cheikh Ahmed Tidiane si ñu ngi waaj a ñëw noonu moom maam Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine waaye tamit ak euh, maam Cheikh Ahmed Tidiane Sarr ànd maam Babacar ñu ngi noon di romb ànd ak suñu mag ñi macha allah ñu gunge mu rafet lool ma yéen a ko gisandoo ndeysaan ñëpp a ngi bég ñëpp a ngi kontaan macha allah moom maam Cheikh Ahmed Tidiane si fas yéene dellu fële ca kër ga kon nag. Euh, dara du leen fi raw rek fii ci eh, Mourchid FM waaw soxna Adja moom ngeen gis ni yaay mu ngi noonu di jàll soxna Fatima macha allah mu ngi jàll noonu soxna Fatima eh, ak eh, njaboot gi ñoom ñëpp rek aha mu ngi noonu di jàll waaw kon nag yéen a ko gisandoo nga xamee ni maam Cheikh Ahmed Tidiane si euh, Moustapha mu ngi noonu dugg si kër gi ànd koog njaboot gi waaye tamit ànd kook euh, soxna Fatima ànd koog maam Babacar si ak maam Cheikh Sarr ak euh, suñu yaay ñu gën koo xam ci yaay waaye tamit soxna Umu ñoom ñëpp ñu ngi dugg si kër gi. kon nag rendez bi suba lay fa yéene doon ak ki ñuy xaar surprise bi nga xam ni nag nañ xaar rek suba ku ko tardé rek incha allah. Euh, di nga tardé lu am solo kon nag suba la fas yéene doon fii ci euh, Mourchid TV di dellu di sant ñëpp rek xam naa bu suba rek ñu jox leen rendez-vous incha allah à partir de 9h dàpp 9h30 ñu war a teewe waxtaan bi nga xam ni loolu lépp ñu ngi ko jaglee suñu sëriñ suñu wasila Seydi Mouhamadil Moustapha nga xam ne mu ngi ñaanal maam Cheikh Ahmed Tidiane si Moustapha euh, maam Cheikh Ahmed Tidiane si Maktoum. gannaaw bi nga xamee ni nag euh, la 15 mars euh, si la fi jóge woon ba 15 mars 2022 euh, kon nag ñu ngi dellu di sant képp koo xam ne yaa ngi doon teewlu seen télévision Mourchid TV ba suba incha allah